sunu kirist maye fit nag ak mbëggeel guy defal sunu xol sunu amee cër ci xel mu sell mi su amee cofeel ak yërmande ci sunu bokk ci moom kon mottali leen sama mbég ci bokk benn xalaat ak genn mbëggeel benn bakkan ak menn xel bu leen def dara ci kaw wut aw tur walla wonu waaye jiital leen seeni moroom ci woyof bu leen yem ci toppatoo seen bopp rekk waaye boole leen ci seeni moroom te ngeen soloo xel mi nekkoon ci kirist yeesu njàlbéen ga fekk na kirist yor meloo yàlla waaye àkkumawul taxawaayam ci limu méngoo ak yàlla waaye daa wàcce boppam ba tolloog nit ñi def boppam surga te bi mu yoree bindu nit daa suufeel boppam di dégg ndigal ba joxe boppam ñu daaj ko sax ci bant moo tax yàlla kaweel ko lool jox ko tur wi yépp ngir turu yéesoo tax ñépp sukk ci asamaan ci kaw suuf ci biir suuf te ñépp bokk genn kàddu naan Yeesu Kirist mooy boroom bi ci màggu yàlla baay bi noonu samay soppe xam naa ni musuleen a jóg ci dégg ndigal waxuma sax bi ma nekkee ak yéen rekk waaye rawetina bi ma leen soree kon nag maa ngi leen di ñaan ngeen biral seen mucc ci seeni jëf te def ko ci ragal yàlla gu dëggu ndaxte yàlla ci boppam mooy jëf ci yéen ngir ngeen fonk coobareem te di ko jëfe lépp lu ngeen di def nag buleen ci boole xultu mbaaxuloo noonu dingeen am xol bu laab bu àndul ak ŋàññ di gune yàlla yu amul sikk ci biir jamono ju yàqu te rëb dangeen di leer ci seen biir ni weer ci àddina si di jottali kàddu dund gi noonu bu bésu kirist ñëwee dinaa mën a bég xam ne dawuma lu amul njariñ te sonnuma cig neen te bu sama deret waree tuuru sax ngir seen ngëm mat sëkk ma mel ni naan gu nu boole ak sarax su jëm ci yàlla ba tey bég naa ci te dinaa ci bégati yéen itam nag bég leen waaw fekk si leen ma ci sama mbég gannaaw loolu dinaa leen yónnee timote balaa yàgg ngir sama xel dal ci xam nan ngeen def ndaxte amu fi kenn ginnaaw timote ku bokk ak man xalaat te fonk leen bu wér ñi ci des ñépp seen bopp lañuy xalaat waaye du mbiri Yeesu Kirist waaye xam ngeen takkuteg timote ci ni mu ànde ak man ci tas xabaar bu baax bi ni doom di taxawa baayam moom laa yaakaare yónni fii yéen nag waxtu wu ma yégee nu sama mbir di tëdde waaye wóor na ma ni boroom bi dina ma may man ci sama bopp ma seetsi leen balaa yàgg ci lu jëm ci sama mbokk Epafrodit nag mi sama nawle ci liggéey bi ak ci xeex bi te di seen ndaw ci faj samay soxla jàpp naa ne war naa leen ko delloo ndaxte namm na leen lool te tiisoo na li ngeen yëg jagadeem ci dëgg-dëgg woppoon na ba xawa dee waaye yàlla yërëm na ko ba fëgg boppam raxte dolli siggil na ma manitam ngir ma bañ a am tiis ci kaw tiis noonu delloo naa leen ko ci lu gaaw ngir ñëwam bégal seen xol te man sama xol féex teeru ko teeru bu rafet nag ngir boroom bi te teral ngi mel ni moom ndaxte liggéeyal na kirist ba riisu dee te gar na bakkanam ci taxawal leen ci toppatoo bi ngeen yéene woon ci man